tabarkalla tabarkalla ah macha allah sama xaalis xii na ah tey la tey ah du yomb tey te tey du yomb ah. léegi nag balaa balaa noo def dara ah. ndax dafa am loo xamante ne nii géwél la ko moom mooy dëgg de balaa noo commencé dara dañuy tàggu mbaar ba pare mooy dëgg de su ko defee nag ñu def présentation bi artistes yi ñëw kenn ku ci nekk def sa passage ñu xool ah. parce que lii casting la mm. waaw te lii casting ku ci mën a xam na waaw ku ci mën a def xam na waaw kay bàkk bàkk baa ngi acca ñu dem acca acca ñu dem macha allah maa la wax loolu. bis bi nag moom nii rek la mën a mel. ah noonu la ma xam nga lu tax. ah. ndax wax dëgg yàlla waa lebel baa ngi nii toog. waaw ah, waaw xale yaa ngi nii. ah ndeysaan productrice baa ngi nii. maa la wax loolu. moom moo ngi nii toog ci wetam. seen waa lebel bi kontaan nañ ci yéen. ndax munoon ngeen xeeb moom moo te defoo leen ko. waaw ah. munoon ngeen wax ni carrière am seen yoon nekku ci waaye da ngeen di assister li nga xamante ne nii dégg nga maam moom mooy. kese ba léegi bàyyiwul. Miss Gueye ni nii toog tabarkàlla gey ndiora ba si borom imani yow bo toogee fi dang fi wara tok toog ndax tabarkàlla yow momo jaral mhm. ah. hmm. na la nga dagg billet ba France ñew Sénégal pour carrière momo yalla na sa jamm yaa amin way mané ne da dayen teg sama dom mhm. ndaysan mu don ko xamanteni ni ndaysan ah xam nga olof nan mbaay lu juddoo ci tàgg lu ne. Mhm. bu naawul jaaxali mbokkam. kii kii ñu jaaxal ñun. Mhm. waaye nag yow yaa ñu jaaxal. kii rek ñu jaaxal ñun. tabarkalla tabarkalla mu naawul rek. ndax doomi géwél danga war a dégg pire. moom ni mu déggee nii bu nee der xel yëpp dem ci dem ci waykatu ndaanaan yi. dem ca waykatu démb ya. Oh! man su ma nee der ñëpp xam nañ ne ne ndeysaan ba géwél ndakaaru nag ah téye na galañ nag di bàkk. mbokum mbokum day mbokum day vieux sëñ fay. cum mbokum mbokum day du njaakum ruus. sama rakk. jóge ba dëkk ba ñëw yàq ko ci dara daj ci àdduna su la neexoon nga ne Kaolack laay yem ca Papa Ndiaye coppet waaye defoo ko déedéet du damay ñëw da ngaa dërale ñëw bàkkan sekk ñoom bàkkan sekk ñoom woo na ma ba tay bi ma ne eh. ko seex laa jëm man loolu ndax ndax ndax ndax ngéwél daa war a saxaat léegi nag comme que ñoom ay jëree jëree lañ ah. ñun nag yàlla dafa dogal ne ay waalo waalo lañ mhm. ñun ay waalo waalo lañ biir tabarkalla tabarkalla léegi nag hmm. nañu jublu ci liggéey bi <laughs> nañ jublu ci liggéey bi <laughs> ñu xool ah ndax gars yi aca lu nu indi ba xam damaa dëkk ci koñ bi. waaw di artiste boo xam ni. waaw bu ma ñëwee dégg nag. waaw ñuy def fii Kaffrine. waaw. Kaffrine nu mu tudd. Kaffrine la waaw. bu ma ñëwee fekk ko fii. moom moo waral ko. kon damay ñëw wane sama bopp. ba baax te nag ñaar laa mëne. damay fecc. waaw damay tëgg. kon ngéwél yëngu na. ngéwél yëngu na. léegi nag gàllaay. waaw yow kon inscription bi mat léegi pour ma xam ni yow dangay da ngay tëgg da ngay fecc galañ baa ngi nii werante xooxaan tekki tubay nag taxal booy yow yaay kat man la Demba. yow la Kumba Kumba Kumba nga tudd ah, ok bi nga fële après nga joxe sa numéro téléphone muy gaaw ¡Gracias!